hadiyati ya rasulallah hadiyati ya rasulallah hadiyati ya rasulallah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 ni ñoo gën a sell ci ni ñooñu ni ñu yàlla doxale ci jullitam mu raw di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ñu ci ay ñaanit di ko ñaanal Cheikh Sidi Moutar ku ne ci lu baax soo ca mënta nekki di ko jàppale ci la nga mën mën naa tax nga baax on est disponible à on est à disposition à chaque fois nga soxla ko bokk nañ ko soldat pare bi ci desit mooy ni ñu ko dégale lu gàtt lay doon li ñuy def rek ba weeru soog léegi benn fanu safar ba tey benn fanu safar bi ba léegi kon njaay ñëpp ñu ngi jóg Tuubaa dañu am safara ba fukki fan safara ak juróom benn ñu bàyyi dem Tuubaa ci mu fekk boromam bu ñu ñëwee jël Tuubaa ci dara ndax xam ci wax ne mooy te def mooy mooy donc wax bu bari bari bari sëñ Tuubaa mu ñuy génn dafa déclaration sama boobu yàlla ci man la fa ara an naa la ñu ko jël wa an akuna xaadiman fi daw wa an akuna shaariman fi daw ñetti point essentiel ñu ko génn ñetti point essentiel premier point bi mooy suñu borom man ma am ci moom lu kenn moom kenn du ko am amoo quarante ans nga xam nga zaman kenn du ko am amoo quarante bi mu duggee xam ne yéen ne xam nga laata rasulullah gaatu gaa yi dama xalaat yéen ko ne man dama laa bëgg moroom li bàyyi wax léegi yan ma ñëwoon xutbu yàlla ak loolu te après ñu ngi koy yàgg octobre daal yéen tamit defal loolu temps yu bëri laaj ñu ko waaye dafa laaj da koy nekk yéen ñëpp sëñ bi waaye nag loolu laa bëgg yéen bi boo xamoon ne ko sax damaa bëgg nga nangu li ma la ko jox mooy ne damaa bëgg xutbu zaman say at amat ba gis sëñ bi waaye dafa am loolu yéen tamit dafa dama lay jox xutbu zaman say at amat deux ans yi ñu ngi dese maanaam tëbal ñu def la Chérif Aliou Sambal jéggi na loolu ne ko ma si Abdou Khadre ko ko ak loolu la ko xam lu a dem ba jàkkaarloo yéen bi waxante ak moom su ma jiwul bu dama lu bëgg faral dara ji a yem rasulullahi nag moom gën a yàlla moo fi ne kon premier bi moom Sénégal dafa amee muy ana ak muy ana ana la bu jaax fi doon amee bi des mooy wax ak ndax xaadiman fi daw moom moom moo ci des bi ci des loolu mooy ma nekk kii liggéey ngeen bi éternellement le serviteur du peuple man maa ko war a doon hmm. Sëriñ Tuubaa ne en la ma nii safina bi am na ni xaj na mu si man sag na nag moom ndaw ndakaar loolu asakula bi ma nekkee ci biir gaal gi dama nag ne ma gaal xale sol tappal naa ci biir gaal gi yàlla ne ma def naa la ngay xale sol kon les deux suñu tubaab am na ko Sénégal mu def bala waa na chat yi am njëkkoon mooy nag may ramu ji nag waa géej gi suñu dëppee kon suñu tubaab tukki bi li muy yàgg yàgg li muy metti metti li muy tar tar daanaka lu mu doxal lu lu mu moom moom. waaye ñun ñu ñoo am lépp. ba doon li mu bëggal moom am na ko biir Sénégal ñun li ñu bëggal ñu am ko Sénégal dafa amuñu kon gën a ñu faral di jëf bi ci des mooy li ñuy wax ni dafa am ci état bi suñu toolam mooy daa réclamé doon xaaral rasul ñu dem ba benn instant yéen ñu ne réclamé doon xaaral rasul ñu dem ba benn instant ñu naan man sax léegi sax sax ko si yéen man maa koy assumer man maa ko dugal xalwa si bu muy dugg xalwa fii moo ne yeneen bi damaa am lu ci liggéey bi dem ci liggéey bi ba liggéey bi toll jot koo xam ne ne yeneen bi ànd ak ba ci yàlla ba ci yàlla loolu kii maa ko ila kaw nii xat yi mu wax yeneen bi bay dem ba ci yàlla nag kii kat bu nga wax ma koy ma koy ma koy ma koy bañ a bàyyi xel jot na nag dañ ma ko defaloon te loolu yëpp naa yëpp naa xam léeg-léeg ci benn boîte benn boîte ñuy liggéey fenn rek nga gis ku xarañ fenn ministre bi day bind daan ne dañ ma ko dañ ma ko gage étation bu dul moom ba ministre nag ma ne étation bi ni ma ko indil kon yaa ngi war na xam daal étation bi ak fu mu ma nekk ni ma ko indil bi ci def nag mooy yàlla préparé suñu borom ma dem ba ba mu neex ko nag ba liggéey bi nag dem ba mu am ci la mu bëggoon suñu borom daal dinañ na sëriñ Tuubaa inni te en tout cas xaddiman lahu ba abdan liya dëgër kaw loolu suñu borom wax suñu borom moom ni inni man yàlla ca en tout cas xaddimu maa def ngay dégg mu yonent bi wa abdi yàlla ngeen sama jàmm dëgër kaw loolu sa yu jamono man ko def hmm. kon nag lu ñu war ñun lu ñu war ci état bi bare bare bare bare dañuy xool ci plan religieuse bi sëñ Tuubaa def doy na sëkk sëkk sëkk sëkk kii moom ci xëy na la ilaha illallah ma ci xëy na am na Muhammad a nga jàpp sëñ Tuubaa fonk waaye dañu defaat dara ñuul wala sa ñuy jibu sa waay bi ci suñu sa faa ko fata rasul bu ñu demee ba les instances les grandes instances bi ko ñuul dafa nekk sëñ Tuubaa hmm. dañoo xool 1945 bi ñuy nekk bi ñuy nekk ndar Doudou Momaye moo nekkoon le plus grand des Sénégalais te interprète la woon. gis ngeen dëkk ñu toll Doudou Momaye moo nekkoon le Séné africain bi gën a grave ci africain yi te interprète la woon ci benn guddaar. même pas dix ans même pas dix ans Sëñ Tuubaa créé quelqu'un boo xamante ne nii ci mbaax boppam bi yéen a mën a ngi nii sëñ Tuubaa ko def chef de canton mu nekk ci biir trois yi dogal. dala nangu ku ñuul mu dogal ci tubaab ci borom ci tubaab bi kon benn complexe racial bi amoon ci diggante nit ñuul yi seen tubaab yi ñu fii la ko dindee bi ci def mooy bu ko demee mu tane seen tubaab tukki bi ñetti état la waaye seen tubaab bi gën a jënd defaroo mais seen tubaab aw yàq tubaab

njabootam bu jaay mu laal sëñ Tuubaa dañ privé dafa dem jàpp yàlla bi muy génn ñu ci kaw mooy ko suuf yàlla la samay samay taax màpp na wala xam nga am ñuy tafaam la ma amoon lépp ca man ca man ca man ka gannaaw si Ibrahima ka gannaaw moom si Attaal ka gannaaw si Masamba ka gannaaw si Ousmane ka gannaaw si Faram ka gannaaw amatuma dara mm-hmm. waaye lu ko jaral ko gën a nag te mat xil war nañu ko assurer waaye nag ña ma ko jàppal man na ma kii may waaye jëmal ci géej gi dana ma yóbbu ma dem dana ma jënd si waat ñu yóbbu gi sept ans sept mois ak ay jours ji ba sonn ñu ñu ne ginnaaw jim nañ épreuve physique baaxut nañ def nañ nañ def culturel ñooñu ko 1902 1903 ñu ne ko jël leen gànnaar ndax gànnaar seet si biir la fa Cheikh Saxaaba la ñu nga fa naar yu bëree bëri bi ay sura maa nekk bëri xam-xam loolu xam diine loolu te naar Sénégal la tax baaxoo am ko nit wax complexe bi ñu wax ne dañ ko baaxoon woon seen nafa bi moom moom ñu indi nañ ko yóbbu suñu ko yóbbu suñu tubaab lu mu baax baax baax baax boo fay ba demee day éveillé ci naar yi dañ ko yóbbu ñu nekk bismillah ñu tàmbali dem xomaat suñu tubaab def ko six mois mm-hmm. mu ngi doxee Sénégal fekk ko tuuti naare tàmbali rek di jëbal seen tubaab ñu si laaj ay masal si fay tontu ñu dem ba lépp taxaw ci suñu pare ko laaj ñu noonu lii taxul ñu def nañ ko fu gën a laaj fu gën a fu gën a mel hmm. ñëpp day maam ku nekk dégg na mu sax day mu suñu tubaab dégg ko maa nekk yaa muxtaar bi tihaani fii kulli saa wa hmm. waaw day maam képp topp seen tubaab ñu génn ñu gën tamit ñu dem ñëpp fa saa seen tubaab ne innal lazina yurakka saa fa saa ziyaar te gën a garaaw mooy al wirdul maxuusa min allahi wa rasul tabaaraka wa taala comme sëñ Tuubaa comme sëñ Tuubaa ñu naan des fois ba mu ñàkk mu ne li nga métro am sëñ Tuubaa nag ni yàlla ni yàlla dafa jullit yéen ni yàlla dafa jullit ci yenn bi yéen ni yàlla dafa jullit ci yenn bi ndax dama nga ne ko xamal mu ni nangam dañ def yenn sëñ Tuubaa dama nga ne ko jox nañ ko nangam bu yenn bi waree war jullit nañ ñu ne ko dama nga ne ji Muhammad sa borom nee na iqra bàyyi bu sëñ Tuubaa war a jël ruuj wi yàlla moo jël ruuj wi jox sëñ Tuubaa xam ne suñ Tuubaa sëñ Tuubaa mu leer nañu al wirdatul mahfuuza min Allah bi waasitati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par intermédiaire la wax ngeen ko intermédiaire joxe wu ko moom ko yàlla ko joxe daf koo yónni mu doon jox dama xam ne suñ Tuubaa mu dem foofu soo tuub mu ni ceen ndax dafa entravé rek ceen dara entravé dem ko yëngu mag ñi dina dem téye nawet bi daan def garab bu ñu romb dagg bant teg ko. ngir xam ngir xamee yoon bi. ba fi mu ne ma def 100 mètres rek daan dagg benn bant teg ko sam fenn ngir xamee yoon bi bu ñu eggee ci yoon dem ba ci yoon mel ni njaareen bamb la yoon bi alal tur mu nekk ñu ngi koy defee ñu ne nañ ko dugal moom ñu ko def néew njaareen ñu koy law tey raba dàq na. raamu mos mi. daa daa fas law aalama sirra maa fi sayni maanaam il faut ñu taxaw ci wax est wax suñu tubaab nag mënut la ba noppi mënul wax te amul lu tax kon ñëwul am na lu tax bu ñu ko bëgg mukk mukk mukk ñu ne ko dafa mbàkki mu ne fasayu mantul li man la ñu ko décidé mooy seen dee mooy seen toroxtaange wa nii xayaatun wa ibxaa'un mooy sama jug ba faaw mooy sama jug ba faaw kon ma jàpp ne parce que ñëw fi maxuus day bokk ci ibxaa'un wa xiyaaun jamono suñu tubaab yi dañ naan nekk yéen day bokk ci ibxaa'un wa xiyaaun sëñ maam Cheikh nekk fii day bokk ci ibxaa'un wa xiyaaun keneen ak keneen nekk feneen day bokk ci ibxaa'un wa xiyaaun il faut ñu dégg seen bopp te mu war a indi wax dama doon des dama doon sax dañu dajewaat faaw. kon nañu xam ni Sëriñ Tuubaa xam nga ñu toggoo yëpp yëpp yëpp lu muy métti métti métti métti parfois ñu wax ay tur ay gaynde yu kenn xamante Sëriñ Tuubaa ci ñu ko def yooyu jëwut ci. ndax mën nga ko romb asamaan si ñu mm-hmm. doon dara xool. c'est tellement difficile. ndax mën nga ko romb ngay dox bi nga ne nii ngay def say yoo xam ne est-ce que dox. seen bi si sëñ Tuubaa suñu toog daan togam na sëñ Tuubaa daaw toog nii ma toog sëñ Tuubaa sañu ko woon sëñ Tuubaa daaw dox gerte buy dox ku mu mën a ku loo ko mën a sama sama sama day taxaw wan leen ba day xam ne yow la ko wax waaye sëñ gerte sëñ Tuubaa dañu doxal bi téye lu dul alxuraan sëñ Tuubaa dañu dox dara demoon na ba ñu sëñ Tuubaa doom joo am doo téye sëñ Tuubaa dégg naa ne sëñ Saliou gën a àdduna demoon na ba koy sox am loo xam ne ko ndax ma ne war yàlla sëñ Tuubaa dina la sama jàpp ndax bëggoon na koo téye doom joo am sëñ Tuubaa su ko mu jaay ko ba jaay ko def waaye nag nag def na def xam jamin a war a kese nag jaay dem gi li ñuy rëy rëy rëy rëy rëy yéen mën nañu di lekk dafa yéen mën nañu di lekk dafa ndax yëllut nag ñëpp nag même pape bi wax au nom du père du fils du Saint-Esprit mu ne Sëñ Tuubaa jërëjëf dëgg la ndax yëlut nag ci kook da ngay woon monsieur Amadou Tidiane Chérif ne suñu Tuubaa jërëjëf ndax yëlut ci kook da ngay woon monsieur Abdou Khadre Diagne ne suñu Tuubaa ndax ndax liggéey yoon naa ko yàlla tey waaye ci gën a garaaw am ni sa tuxul Tijaan xan ya am ni sa tuxul am am ni xulafaa am ni daan na xamal lam yaqul am na yarda falkari ku ma ko baax ku baax ñu ne la am na mu baax rek suñu tubaab dina fekk ñu ma sama pàcc bi ma toog ñu ne la bañ nee ba jëf takk yàlla wàccal ma woon xamal lam yaqul am na la wax yàlla mu màgg nii falkarim radiya an nii ridan lay sa yore suñu borom nee na ngërëm li nekk ngërëm di tabbi ngërëm di toog xéwal ci gërëm kon ñun ñàkk a gërëm sëñ Tuubaa lu sëriñ bi ñàkk waaye gërëm sëñ Tuubaa lu yokk sëriñ bi waaye ñun nag dina gën jëfe sëriñ Tuubaa suñuy lu di yokk suñuy may di yokk suñuy xelfo di yokk na ngi jégalu bu baax li ma bëgg a rek mooy gàtt la doon dafa am ay benn boole kii maanaam moom min ñi fan la bi ñu boole ñoo bokk dëkk ñoo bokk dañoo bokk dret man da saa mu ko dudd ngeen day ci maanaam ñoo ñoo ko bokk bi ci des bi ci des ñoo bokk dëkk ñoo bokk njaay mën ci bu kii dëkk ci saabu def daan dëkk kër si teewut te arab ko wax ala ko lu tawaat gis nga ki amut kaa bu dee tubaab de mën na ko tax loolu boobu maanaam xol yi bëgg sëñ tubaab ndax ñu parce que gëm sëñ tubaab ma bëgg rek ñëpp xam ni ñëpp xam ni am nañu ndax bànneex am nañu ndax jaayante am nañu ndax dañu am ngir jëmme sëñ ma rek ma suñu warut na ma ma ne dem dal na suñu nangu la ba ñu xam am na ñu di jaayante am na ñu dagante ginnaaw waaye yow nga jëfale mooy nañu ci bopp bu kenn léegi mën na fi ma fus naan ko laaju bu la laaju ko kenn bu doon naan sàngal xabaar moom bu ko kenn la laaju ko kenn na ko waaw góor waay kenn na ko bu kenn dem fi ma fi ma ko seen sàngal naan laaju ko kenn nañu ñu bàyyi ku du mën a boole gi jëm suñu boole ñu boole bu ko bëgg nañu bàyyi asalaamaaleykum jërëjëf hadiyati ya rasulallah hadiyati ya rasulallah hadiyati ya rasulallah